du 4 septembre est l'installation du nouveau Parlement. Comme en janvier dernier pour les élections territoriales, nous sommes allés aux urnes le 31 juillet pour élire nos députés. À l'unanimité, les observateurs internationaux et de la société civile ont témoigné que le scrutin qui s'est déroulé sous la supervision des organes administratifs et judiciaires compétents, a été paisible, libre et transparent, garantissant ainsi la sincérité du vote et la crédibilité des résultats. Le mérite vous revient, mes chers compatriotes. Grâce à votre participation citoyenne, dans le calme et la sérénité, notre pays a confirmé sa tradition de démocratie majeure et apaisée. Cela fait notre honneur et notre fierté. Je vous en félicite. Je remercie et félicite les services de l'État, les organes de contrôle, ainsi que les forces de défense et de sécurité pour la parfaite organisation du scrutin en pleine saison des pluies six mois seulement après les élections territoriales. J'y associe les acteurs de la société civile et des médias, dont l'implication active a contribuer à la crédibilité des opérations électorales. Aux députés élus de toutes les formations politiques, j'adresse mes vives félicitations et mes voeux de succès dans l'exercice de leur mandat. J'ai également une pensée pour les candidats non élus et les députés sortants. Le renouvellement du mandat électif étant l'essence de la démocratie, la composition de la nouvelle Assemblée reflète la liberté et la pluralité de nos choix, mais aussi nos aspirations et nos espoirs. Cette expression plurielle mérite écoute et respect. Elle rappelle à ceux et celles qui bénéficient du suffrage universel qu'en démocratie, le pouvoir appartient au peuple et que le mandat électif n'est pas un privilège, mais une charge à échéance régulière au service du bien commun. C'est dans le même esprit que je salue le bon déroulement des élections pour le renouvellement du Haut Conseil des collectivités territoriales. L'échéance électorale du 31 juillet refermée, il n'y a plus, à mes yeux, des candidats de camps opposés, mais des représentants du peuple, élus par et pour le peuple. Il en est ainsi parce que d'est en ouest, du nord au sud, chaque voix citoyenne compte avec les mêmes droits et la même dignité. Au demeurant, au-delà de nos convictions et de nos choix individuels, nous sommes un même peuple. Nous avons la même histoire et le même destin. La nation sénégalaise reste une et indivisible. Nous sommes une seule et même famille. Le choc des idées et des ambitions ne doit jamais nous faire oublier notre vivre ensemble. Voilà pourquoi je regrette profondément les incidents survenus à l'occasion de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Le spectacle désolant auquel certains se sont livrés dans l'enceinte de la représentation nationale en détruisant du matériel et en violant la sacralité des lieux, foulant ainsi aux pieds des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et d'une extrême gravité, indigne d'une démocratie majeure et indigne de la confiance du peuple. Ce n'est certainement pas ce que les citoyens qui ont voté dans le calme et la transparence attendent de leurs représentants. Il faut prendre garde. Dans un monde exténué par les déchirures de la guerre, de la violence et de l'extrémisme, nous devons mesurer la chance que nous avons de vivre dans la paix, la sécurité et la stabilité. Nul n'a le droit de détruire ce legs ancestral, notre bien commun. Il nous appartient plutôt de l'entretenir et de le transmettre aux générations futures. Parce que les hommes passent, mais la nation sénégalaise demeure. En vertu des charges constitutionnelles qui m'incombent, j'ai le devoir de nous rassembler autour de notre bien commun et de notre commun vouloir de vie commune, parce que c'est mon rôle de garant de l'unité nationale et du fonctionnement régulier de nos institutions. J'ai la conviction que c'est aussi le choix que vous avez exprimé, mes chers compatriotes, en votant dans le calme et la sérénité. Par ce vote, vous avez réitéré votre attachement à la paix contre la violence sous toutes ses formes, parce que la nation reste unie au-delà de ces diversités et pour que nos institutions continuent de fonctionner sans entrave. Votre message de paix, de stabilité et d'harmonie nationale doit être entendu de tous, sans exception. Alors que le monde entier est confronté à une flambée générale des prix du pétrole et des denrées de première nécessité, l'État a déjà pris des mesures sans précédent de protection sociale et de soutien des ménages pour plus de 620 milliards de francs CFA, soit 300 milliards de subventions au carburant, à l'électricité au gaz au 30 septembre 2022. 157 milliards de renonciation aux recettes fiscales pour éviter le renchérissement des prix du riz, du blé, du sucre et de l'huile. 120 pour la revalorisation des salaires des agents publics. de 43 milliards de transferts d'argent en soutien à 543 000 familles vulnérables. Les mesures d'allègement du coût de la vie et de soutien à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes, la contre les inondations, la cherté du loyer resteront pour moi la priorité des priorités, parce que mon souci, c'est de tout faire pour rendre le quotidien plus supportable pour tous. Dans cette optique, nous avons en perspective de larges concertations avec toutes les parties prenantes, notamment les associations de consommateurs, les commerçants, et tous les acteurs pour arrêter de nouvelles mesures. Ce sera une des tâches prioritaires du nouveau gouvernement que je m'apprête à former des demain. Ainsi, et ensemble, mes chers compatriotes, j'ai confiance que nous poursuivrons la dynamique du Sénégal que nous aimons. Une nation unie où bouillonne sans cesse la passion et la joie de vivre ensemble une nation plus forte asalaamaaleykum mbokku Sénégal maa ñëw tey ngir waxtaanaat ak yéen ginnaaw xew-xew yi fi jàll yépp mu doon élection yu député yi mu doon élection yu haut conseil des collectivités territoriale mu doon itam euh, taxawaay bu bees bi ñuy taxawal assemblée national bu bees bi nga xam ne moo génne ci élection yi ma bëggoon tàmbali si di sant suñu borom di sant itam waa réew mi ci ni nga xamante ni noonu la ñu defee woote yi jàll yépp muy def ko ci jàmm def ko ci salaam waaye organiser ko it organisation bu am solo loolu nag jar nañu kañ askanu Sénégal ndax Sénégal wane na ne démocratie bu mag la démocratie bu mat la suñu administration ci diiru juróom benn weer ci juróom ñaari weer organiser na fi lu toll si ñetti élection ci benn at bi si weeru janvier def nañu élection mairie ak conseil départemental weeru juillet ci njeexital li ñu def élection député yi mu tombeek nawet ci weeru septembre taxawaayu weer wi ñu def itam élection au conseil des collectivités territoriales élection yooyu yëpp nag li muy nekk-nekk xëccoo li muy bëri bëri jafe-jafe ñu organiser ko ci dal ci démocratie askan wi wane si mat gu mat sëkk ku ne tànn la nga xam ne moo la doy moom nga bëgg tànneef boobu moom la ñu jot ci résultat yi ginnaaw bu ma santé askan wi danaa sant administration ak waa tribunal yi nga xam ne ñooy atte élection yi sant itam force de défense et de sécurité muy l'armée police gendarmerie ngir sécurité bi nga xam ne indi nañ ko ci élection yi waaye sant itam ñii ñu tuddee observateur nga xam ne ñooy yurndu élection yi ñii jóge ci biir réew mi ñi jóge bitim réew sant parti politique yi nga xam ne ñoo nekkoon si jongante bi waaye tam sant nag presse bi nga xam ne ñoom ak société civile su leeraay amee ci élection seen dox seen loxo jotle na si kon mel na nu Sénégal démocratie bi wala boog aada bi ñu amoon ci wàllu démocratie wane war nañ ko ci élection yi muy élection yu leer nañ yu amul benn sikki sàkk waaye surtout élection yi ñu dox si jàmm kon ginnaaw nag taxawal nañ assemblée nationale bu bees maa ngi euh, jox sama ndokkale ñi nga xam ne ñoom la ñu fal ñu nekk ay ndaw réew mi di leen ndokkale ci pal googu la nga xam ni askan bi wane na ne moom mooy kii joxe maa ngi am itam xalaat ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon i député te war a génn ndax démocratie itam noonu la ñeneen itam dem nañu ci jàmmarloo bi waaye yàlla def na amuñu démocratie nag saa yu nekk day day am jàmmarloo ñii dugg ñii génn ñii am ñii ñàkk noonu la mbir mi doxe waaye bu ñu gisee li xew fan yi ci taxawaayu taxawalu bureau bu bees bu assemblée nationale maa ngi ñaawlu lool xew-xew yi nga xam ne gis nañ ko ci assemblée nationale xew-xew la yoo xam ne rafetul ci deru Sénégal rafetul ci dayo démocratie Sénégal ndax fitna ak ñaawteef yoo xamante ni bokkewul dara ak li askan bi wane moom lañu gis muy xajamal suñu démocratie ñaawteef yooyu nag ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo ko def ñu xam ne ci ndaw réew mi kuréel la gu mag ci Sénégal kuréel la gu ama am solo ndax assemblée nationale moom moo yor budget yi ñuy doxalee réew mi su budget amulee dara du dox ñiy faju duñu mën faju ñiy fayeku weer duñu mën ku weer ñiy du ñu am lu ñu leen jàppale kon loolu du ay caaxaan loolu nag jàpp naa ni am na ba pare waaye li may ñaan député yi nga xam ne léegi toogalatuñu fa parti waaye ñoom ñoo fa toogal askan wi ñu xam dayowaay boobu respecte it bërëb ba ndax bërëb ba même gouvernement amul sañ-sañu ñoo dugg ku ne am na fuñ la teg lu dul ñoom ñi nga xam ne ñoo yor woote bi ñoo fa war a nekk kon nag dañ fa war a nekk nekkin bu rafet nekkin boo xam ne méngoo na ak askan wi lii nga xam ne jox na ko kenn ku nekk si ñoom ci kóolute bu loolu weesoo may fàttali si ne charte réew mi de am na lu ma teg en tant que njiitu réew muy war di saytu doxalinu réew mi ak doxalinu kuréelu réew mi loolu fala budda il faut que ma topp ko ba lépp luy démocratie ak luy xajamal démocratie wala doxinu doxalinu kuréel yooyu dara mën koo gàllankoor bañ ko gàllankoor maa ngi ñaan nag député yëpp ñu taxaw seen taxawaay na ko assemblée nationale yëpp doon defee depuis indépendance gis nañ fi façon débat bu nekk kenn ku ne lay sa xalaat lay sa bëgg-bëgg mën nga ko wax te doo yàq mën nga ko wax te doo xeex loolu nag mooy li nga xam ne maa koy ñaan ngir ñu mën a jublu ci liggéey ndax lu matul weer dinañ war a def session budgétaire muy budget réew mi war nañ dem waxtaanee ko dafa laaj ñu def ko ci dal def ko ci yar ak teggin du tere kenn ku nekk li nga xam ne mooy sa ngëm-ngëm nga wéy di ci dox loolu fas yéene naa ko dox ndax charte bi moom a teg euh, maanaam responsabilité boobu ginaaw loolu mbokk yi dañu nekk ci jafe-jafe àdduna jafe-jafe yoo xam ne wër na réew yëpp ndax si mbas mi ñetti at a ngi ni fenn fu ne ñu ngi fay gis ay tolof-tolof ci wàllu liggéey ci wàllu koom ak ci wàllu dundinu askan bi waaye terewul jafe-jafe yooyu li ñuy tar-tar sama gouvernement yëkkati na alal ju takku ju toll ci juróom benn téeméeri milliards ak ñaar fukki milliards yoo xam ne dañ ko dugal ren ngir teggi yenn jafe-jafe yi teggil ko askan wi ci loolu ñetti téeméeri milliards yëpp ñu ngi ko yóbbu ci wàllu courant bi ak gaz bi ak mbirum gasoil ak essence te loolu mu ngi yem ci weer wi muy le trente weeru septembre téeméeri milliards ak juróom fukk ak juróom ñaar gouvernement bi daf ko teggilu ci ay lempo ak i taxe yoo xam ne dañ ko teggi ngir njëg yi ci seen bopp mën a woyof wala bañ a dis lool muy njëgu suukar njëgu mburu njëgu ceeb ak lu mel noonu ginnaaw téeméeri milliards ak juróom fukk juróom-ñaar yooyu ñu yëkkatiwaat lu toll ci téeméeri milliards ak ñaar fukk milliards yokk peyoru liggéeykat yi liggéeyal nguur gi état bi jëlati ba ñeent fukki milliards ak ñett ak lu topp jagleel ko lu toll ci juróomi téeméeri junni ak ñeent fukki junni ak ñett ci ay jaboot yoo xam ne yitteelu nañ ko lool ñu def ko ay transfert kenn ku si ne njaboot gu ne jot si fukki junni ak juróom-ñett waaye loolu yëpp xam naa ne am na solo waaye xeeb naa ko nag lool xeeb naa ko ba tax na gouvernement bu bees bii may bëgg a teg ëllëg bu ci yàlla ànde incha allah sas bi ma koy sas bu gën a tar mooy mu indi saafara indi ay saafara ngir gën wàññi njëg yi wàññi luwaas bi ak yokk xëyu ndaw ñi yokk itam lii nga xam ne mooy jàppale bi ñu war a jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi ci wàllu entrepreneuriat xeex itam continuer di xeex mbënd mi nga xam ne bu nawet amee solo comme nawetu ren bi dana indi ay yàqu-yàqu yu bëri loolu incha allah bu ci yàlla àndee mooy jéego yi gouvernement bi njëkk a def man ci sama jëmm bopp fas yéene naa woote kuréel yi ñi yor wàllu consommateurs yi di si dox ak commerçant yi ak importateurs yi lépp ñu am waxtaan ngir effort yi état bi di def ak sacrifice yooyu mën a yegg si law ba ci askan wi yëpp lii daal mbokk réew mi moo doon kaddu